li fi la xewe ab mo moo fekk étage bu ne ñumm mu dal mu daw ba dal ci kawam nii nag la mënoon a ci kaw doom bi nga xamante ni mu ngi nekkoon di dox ay activité mu dal ci kawam li yéeme na mbir mi mbir mu doy waar la mbir mu nga xamante ne ni war nañ ci bàyyi xel lan la doon def xamuñu waaye lii moo xew maa ngi fàttala ko rek yàggul ndeysaan ça fait pas deux semaines damay dox ba si yàgg rek oto camion suuf daal sama kaw maanaam à deux centimètres mun sës rëkk sama kii geestu gis benn xale bu nga xamante ne nii amul sax quinze ans di dawal oto bi si carrière bi fële lan la mu wax gisuma la woon nga gis xale bi même pour mu nekk si oto bi sax il faut mu def ay coussin tegloo ko pour mën a seen nit ñi

te di leen ñaax it ngeen di moytu moytu nag taxut a mucc waaye daal ngeen di moytu ah waaw di gestu bu ko jaree sax ngeen di gestu ndax lii doy na lol lol. lool lool lool lool lool voilà kon nag wiliru fi lay yam ak yéen ba ci beneen numéro waaye yàlla gën numéro bi mu nekk numéro jàmm jërë ngeen jëf yéen internetu sénégal tv jërë ngeen jëf